yéenañ ci seen biir émission nu ko diine gisee fii ci Thiès Info ñu ngeen ànd ceek seen mbokk seen xarit soxna su Sufiyatu ak eh, oustaz Souleymane jaw macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñi nga xamante ni dañoo génn àdduna yàlla xare leen àjjana ñi nga xamante ne ni dañoo nekk ci hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp waaye ñun ñu fi desandi ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu may ñu gudd fan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 وصلاة وسلام على من قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبوك جلدي مبوك سنغال مبوك أدنى روتين مبوك تيس كم نغن كو باخو خميرك سين إميشيون نكو ديني جسي نكو ديني جسي نك ما شاء الله دي خوي فيتي تيس إنفو Euh, mu doon sit boo xamante ni yaakaar naa ni àdduna bi yëpp a ngi koy seetaan àdduna bi yëpp nga koy bàyyi xel nu ko diine gisee nag euh, ngeen di dox dajeeg moom aljuma ju jot ngeen di ànd ak moom waaye rek euh, tey jii nag incha allah ñu fas yéene ànd ak yéen comme ni ko Seyda Sofiatou waxe ñu dellaat ko bi rek incha allahu taala mu wax ñu fu ñu tolloon ñu dugg ci liggéey bi. macha allah oustaz bi paase ñu ngi doon ñu ngi duggoon ci benn thème bu ama am solo muy xale bu jigéen bi nga xamante ne ni dafa sëy si woon ci benn quartier daal di utu yaayu boppam yaayu ma neex mm-hmm. macha allah ñu yemoon ci nag ban comportement la jigéen war a am ci biir néegu sëyam ak ci fee nga xamante ne ni mooy quartier bi muy sëy. waaw problème boobu mbokk yi yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ko déggandoo woon keroog. mooy jigéen dafa am nu ko olof tuddee baat bi sax boo ko déggee. xam ni am na nu ko wolof tuddee jigéen baat bi jigéen la jigéen nag dafa am position bi nga xam ni moom la war a taxawee sunu borom am lu mu def ci moom xam nga ni keroog boo dégloo histoire bi xam ni mère boobu nee naa la euh, yaay la joo xam ne du référence xale bu jigéen boo xam ne dafa sëy si ci koñ ñëw gis la bëgg la sopp la ba jël la def la yaayam yow sa jëmm bopp nga tourné waat moom moomu la defoon yaayam nga tourné yow sa jëm bopp jël ki nga xamanteni moy mooy mom xale bu jigen bobu jël sa doom yow bu jigen may ko xam nga ni loolu mbokk yi lu mu baax baax baax baax ak wor daane ci biir wor gogu nga xamni nak nek na ci biir xiyana yàlla bëgg ko wor dafa doon lo xamanteni ni baaxul avancé lawul kër avancé lawul quartier avancé lawul lenn kon question bi nga poser Sophie l'islam ñun sunu référence alcorane la ak sunna Seydina Muhammad yonent bi nee na bàyyi naa leen ak ñaar su ngeen ci jàppee du ngeen leer taratu fiikum am rey ni maa tamasaktum bihimaa lan tadilu kitaaballahi wa sunnati bàyyi nee leen ak ñaar su ngeen ci jàppee du ngeen ci réer benn bi mooy alquranul karim bi ci des mooy sama sunna kon ñu gis ni société bi yàqu na société bi lan moo ko yàq mooy amatuñu ay repère amatuñu ay référence comme que perte nañu amatuñu repère amatuñu référence te alxuraan waxoon nañu ñan ñooy suñu repère alquran waxoon nañu ñan ñooy suñu référence lépp looy def kon demal xooli ji alquran li la alquran wax nga def ko jigéen bu sëysee dafa am comportement bu mu war a taxawee dangaa sëy si dafa am comportement boo war a taxawee yow dangaa war a créer société dafa am comportement boo soxe taxawee Serigne Cheikh Ahmad si Al yàlla na yàlla yokk leeram newoon na binaa u saxsiyatil marati saalix xayru min alfi fexe ba tabax benn jigéen nee na moo gën junni góor benn benn jigéen benn jigéen benn jigéen fexe ba tabax ko sofiyatu moo gën junni jigéen kon jigéen lan moo ko war ci biir nee néegu sëyam mooy teey bu ci njëkk dal jàpp sa jàmbur toog ci biir kër gi bu njëkk mooy jigéen li ko war ci biir néegu sëyam teey deuxièmement dal troisièmement jàpp sa ñaambur quatrièmement mooy nga toog sa biir néegu sëy loolu lan moo ko wax alquranul karim moo ñu ko jàngal wa qarna fi buyutikunna wala tabarajna tabarajul jaahiliyatul uule dee leen toog seen biir néegu sëy xale yu jigéen yi yéen ñii sëy dee leen toog ci seen biir néegu sëy lislaam bëggul jigéen juy lambar lambari jigéen joo xam ni fu nekk sa tànk ma nga fa xoolal Cees jigéen ñi léegi foo foo tourné dajeek ñoom ñi am jëkkër ak jëkkër ak lambar lambari marché bu mag lambar lambari muusante lambar lambari marché Grand Thiès xew bu am nga bëgg a dem séet bu am nga bëgg a dem lépp lu bëgg a xew nga ne na nga dem lislaam nee na la yow mi may déglu di la di ma seetaan lislaam nee na na nga toog ki sa biir néegu sëy xale bu jigéen bi li mu doon defi lu baax la da doon wuti lu baax tax mu doon defi lu baax waaye li ko ci mujj jal ñépp ñëpp ñoo ko déggandoo kon lislaam li mu bëgg ci jigéen muy jigéen ju dal jigéen day toog këram wax wa na fii bu buyutikunna alxuraan ju leer nàññ la man waxuma ko wala tabarrajna tabarrajul jaahilatul uule booy wit référence koñ boo dem seetal maire ya yiw maire ya jullite l'apparence est souvent trompeuse loolu la tubaab bi wax bul gis koo gis rek nga ne da nga ko jox sa bopp xale bu jigéen bi li ko dal mënoon naa jël goroom def ko xaritam mënoon naa del njëk njëkkee mi def ko seeni xarit mënoon naa jël xarit rakku jëkkër mi magu jëkkër mi mu def leen ay xaritam léegi nag xëy na def na ko waaye génn na di wuti keneen far la ko ca dal dal na ko chariatul islam lislaam daal li mu wax jigéen boo sëyee toogal sa biir néegu jëkkër lépp lu sa jëkkër sant nga def ko lu sa jëkkër bàyyiloo nga bàyyi ko gis nga jàng nga ko yonent bi nee na jigéen isa salatel marati xamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa ataat zawjaha daxalatil jannata rabbiha jigéen su jullee julli juróomam woor jot mu woor ko nam ko woore war a wooree wattu boppam wattu boppam téye boppam bu ñu nee boppam nag bopp lu sax dur bu ñu egsee ba fii dañ naan wattu boppam jigéen day téye kumbaam loolu lañ bëgg a wax li nga xamante ni moom lañ koy respecté moom lay juree fi may waxee yéen xam ngeen ko kon loolu jigéen da ko war a téye da ko war a sàmm respecté boppam waaye nag la ci gën a am solo mooy wa ataat zawjaha mu topp jëkkëram su toppee jëkkëram rek yëppam dina baax. macha allah oustaz dugg nga ci point bu am solo. boo xamante ne ni xale yu jigéen ñi tey war nañ koo dégg ndax ñu suñuy royuwaay mooy ñoom maam jaara buso ñoom maam Sufiyatu Ñang ñoom maam Fawa Diwele macha allah bu ñu fi bàyyee na suñu référence daal di jël ñeneen it tamit euh, lu ñu si dal rekk oustaz ñu xam ne ñun la rek macha allah li nga indi am na solo trop trop waaye deuxième bi nag tey dañuy ñëw waxtaan ci li nga xam ne mooy journée mondiale de la femme. 8 mm-hmm. mars bi. Mm-hmm. Euh, égalité bi nga xam ne jigéen ñi bëgg nañ ko daal ñu jox leen seen àq ak seen yelleef. Mm-hmm. ci digganteeg euh, góor ñi égalité boobu naka la ko islam gisee. diine l'islam. inna diina inda allahi lislaam alxuraan ne wa man yabtaxi xayra islaama diinan falan yuqbal minhu wa huwa fi l axirati min alxaasiriin diine bu jóge ci suñu borom mooy lislaam beneen diine bu nit topp bu dul lislaam yàq nga ko yàlla ne na du ma reconnaître diine jooju kon diine lislaam la bu ñu dee wax diine rek lislaam a tax ñuy wax 8 mars nga wax xam nga jigéen dafa am tolluwaay am fu ko lislaam teg buñ ko fi bëggee détaillé sax du fi xaj waaye li wëttoor mooy yàlla moo teral jigéen wax naa la ko léegi ni la sëñ Cheikh wax na ko nee na la tabax benn jigéen moo gën tabax junni góor xam nga ni kon jigéen am na fu ko yàlla teg beneen bi mooy liberté liberté yàlla moo leen ko njëkk a jox nañuy bañ a jaawale nag liberté ak égalité liberté jigen dako am mais kan mo len jox liberté sayyiduna mohammed alayhi Salatu wasalaam mo len jox liberté kon jigen am na liberté journée internationale de la femme 8 mars en ah, lan la ci jigen ñi war def moy dajalo borom association yi organiser seen association femme de développement yi organiser seen activité ñi ci am intérêt am ci sen intérêt bob ñu créé ko mu jóge fan Amérique départ bi en 1868 yaa ngi dégg ñu topp loolu di ko topp di ko loob chaque année ñu wut benn bis ñu tuddee ko 8 mars 8 mars boobu ndax jigéen ñi dañ cee war a am dañuy bàyyi ba le 8 ñuy door a am indépendance looloo jar a waa kon le 9 mars ni ñuy def bu dee le 8 mars rek la ñuy am indépendance léegi le 9 mars nan la jigéen ñi def tubaab bi ñuy roy la ñu war a bàyyi. moo ñu delloo ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ni waxul ci mbiru nasaraan dara te teel nañoo yee ci ñoom amul lu mu ñu waxul tey jii ñu ngi nii internet bi mu ngi dox portable yaa ngi dox loolu lépp yonent bi nañu newoon nañu nañu dem ba seen dëkk ya utee ji fa xam-xam utlubul ilma walaw bi siin bi ko yonent bi wax xamumoo ni dina am téléphone boo xam ne siin lay jóge xamoo ko woon xam-xam ut ko foo mën a nekk baax na le 8 bii nag sofiyatu diine lislaam daa ma a jox jigéen liberté waaye diine dafa tënk góor tënku jigéen li ñu war a dugal seen bopp mooy jigéenu Sénégal intellectuel yi ñuy woote ni ay intellectuel lañ bokk li ñuy def seen bopp du loolu la lislaam bëgg sofiyatu lislaam bëggul loolu de lislaam dafa bëgg jigéen wàcce boppam jigéen dal jigéen dafa am fu ñu koy xoolee bokk na ci sifaatul marat saaliha bu ñu ko dee wax mooy jigéen joo xamante ni dafay def day day day day organiser wu su organiser woo rek defar na société moom jigéen googu moo tax ñu ni inna min saadatil marati an takuna zawjatu saaliha da ngay wut jëkkër wala jabar ju baax wa awlaaduwul abraar ut njaboot gu baax wa xulataawu na ña ñuy àndal doom ju baax ànd ak say génération say njaboot ànd ak génération yu baax wa an yakuna rizqa fil baladi yi fexeel ba sa réew nga fay liggéeyee loo xamante ni ëllëg loolu ngay tekkee nga fay liggéeyee loo xam ne ëllëg yàlla dina la gënam ci loolu yàlla dina la ci sant waaye léegi tey jii luñ ci xewal mooy nee nañu na góor ñi defi lan dem marché góor ñi ñooy dem marché damay laaj ndax ndax jekk na ci góor Safiyatu góor di dem marché loolu yow laa koy non oustaz loolu jekkul sax parce que booy seet euh, góor ñi yàlla leen def njiit ñoom ñooy sunuy njiit. ñun jigéen ñi ñun ñoo leen war a toppatoo. kon kay jaaduwul si ñoom ñuy dem marché ñun ñoo war a dem marché ñëw toggal leen. toppatoo leen. Mm-hmm. mais xëy na tey peut-être li ñu jagleel seen bopp. moo tax <laughs> góor ñi war leen a. xam nga xam nga delloo njukkal jigéen. garaawul aayul mais affaire bi dafa am fu mu juge fu mu jógee nag kawe loolu muy ci américains yi la jógee di wàcc di wàcc ba ci suuf boo ko xoolee jigéen ñi dem nañ ba fii Sénégal ñaari loxo yi tànk takk tubay ñaari loxoy takk sër maanaam ñoom li ñu jàpp parité bi gis nga coow ni mu bare woon égal égalité égalité boobu nag chariatul islaam ànd ci tey ànd ci suba ànd ci gannaaw suba arrijaalu xawaamuuna ala nisaay góor ñi góor ñi nga xamante ni xam nañu seen responsabilité ñooy diriger jigéen ñi ba àddunay tukki loolu sunu borom moo ko wax ñun góor ñi santuñu ko suñu bopp yéen jigéen ñi santoo leen ko seen bopp yàllaa ni ñun góor ñi ñooy seeni kilifa arrijaalu qawwaamuuna ala nisaay jigéen ñi ñoo yilif jigéen góor ñi ñoo yilif jigéen ñi loolu daal xuraan man waxuma ko yow waxoo ko yàllaa ko wax loolu nag mun ñoo fexe ba organiser ko neneen ba mu doon leneen du benn beneen bi mooy da ngay dégg sax ñu naan la jigéen boo waxee ñaari baat luñ lay wax ñun de ñoo ëmb ñoo wasin yéen yéenay wax loolu ah jigéen moo ëmb moo wasin mooy nàmpal mooy toppatoo si biir kër gi mooy toppatoo njabootam waaw waaw léegi ñun góor luñ def ñun defuñu dara lu damay laaj rek ñun cela veut dire que ñun góor defuñu dara jigéen seetlu ko foo waxee moom ñaari baat ñetti baat lam lay njëkk a wax ñoo ëmboon ñoo demoon hôpital yéen war ngeen a ñam déglu yéen war ngeen a ñam hôpital mm-hmm. ah yéen yàlla waroon na leen ñam ñamal ngeen ëmb ñun ñoo njëkk ëmb góor moo njëkk ëmb góor ci yëm boppam moo njëkk a ëmb ba pare xiwaay góor dafa ëmb ba pare jigéen dooru ëmb mm-hmm. jàngoo min bay ni sul bi wataraay bi jàngoo loolu du alxuraan loolu lan la kon dañoo xëy xëy xëy xëy rek yéen ngeen ëmb non damay laaj ndax da ngeen xëy xëy rek yéen jigéen ñi ngeen ëmb am na lu suñu borom programme nekkul ci yéen yéen bu dee yéen ak kese kese kese la suñu borom la muy programme programme wu ko kon jigéen du ëmb kon am na lu suñu borom programme mu ni ci góor moom laay faral di wax ni ñun góor bi ñu ëmbee kenn yëguñu waaye yéen jigéen bi ngeen ëmbee fu ngeen romb xam nañ ñu ëmb ngeen loolu suñu borom a ko def ci yéen weeru jot seen biir di neewi weer wu jot seen biir di neewi weer wu jot seen biir di neewi yaa ngi dégg pour pourtant loolu ci ñun la njëkk a nekk mais bi muy nekk ci ñun yàlla maanaam fësul mais heure bi mu waree génn génn na suñu borom dogal ci kàttanam ni yéen yéen a ko war a denc nag kon ci ñun lay déparé ñun góor ñi bu jugee ci ñun ñëw ci yéen su ñëwee ci yéen yéen na ngeen ëmb loola yaa ngi dégg Sofiatou ñun ci ñun la njëkk a déparé moo tax man la góor moo njëkk a ëmb door a jox jigéen mun bay ni sul bi wataraay bi ñun ñëpp jàng nañ ko ci ndiggu góor lay jóge kon kay ëmban nañ ko bi mu jógee ci ñun door a dem ci dënnu jigéen xaw ma ndax dégg nga ma sofi wala déet waaw fu ñu toll nii nag euh, euh, boo ma déggul rek mën ngeen waa oustaz li mu bëgg a wax dama ne min bay ni sul bi wataraay bi ci ndiggu góor lay déparé jëm ci dënnu jigéen ñaari ñaari confrontation yooyu am am fu ko sunu borom placé ci seen biir yéen jigéen loolu ñu koy topp laqad xalaqna al insaan min sulaalatin min tiin suma jaal naa nut nutfatan fi qaraarin makin ba fa tabaarakallaahu axsanal xaaliqin kon ëmb gi ci ñun la njëkke waaye da gis ne ñi ñu naan ñun ñun ñooy dem hôpital yow calculer rek calculer rek sa xel rek exemple laa la jox ñu ni Modou Matar Gueye mii de daa ëmb biir ba neewi na kooku nan la war a mel xalaatal loolu yàlla defu ko pour góor ñi mais pour jigéen ñi la kon loolu Seyda lu ñu war a bàyyi xel la. góor ak jigéen sax mën góor ak jigéen parce que li góor mën jigéen mënu ko yàlla am na lu mu jox jigéen am na lu mu jox góor mm-hmm. mais ñun li ñu yàlla jox nañ ko nangu mm-hmm. warda bi ma xasamallaahu laka takun ahlan naas waaw doy loolu li yàlla dogal ci yow nga doon ki gën a riis ci nit ñi mais ñun bu nañu nangu ne góor ñi ñooy suñu kilifa waaw mais bëgg a indi égalité bi daal daf may déranger parce que yow nga xëy huit dem liggéey sa borom kër xëy 8 dem liggéey. sa jëkkër wàcc 5 heures yow nga wàcc 19 heures. kan moo la koy toppatool. Hmm? mais tamit ci benn côté jigéen ñi nangu naa. Mhm. ñu dem liggéey jàppale seen borom ka mhm. ndaxte su fekkee ni oustaz day fayee ko cinquante mille francs mhm. ñëw bëgg a jàppale soxnaam. bëgg a fay courant bëgg a fay ndox. yeneen ak yeneen toppatoo njaboot gi. xam nga su boobaa dina metti ci moom. kon moom ñu ne bëri yërmande moo tax. ñu bëgg a dem liggéey indi bu ko defee ñu bokk. waaw loolu Safiyatu du lu ñuy bañ. Eh, jigéen góor góorlu jigéen chaque jour dafa war a góor góorgóorlu ba am ngërmande jëkkëram maa ngi koy wax rek ci benn émission télévision bu ñu ma invité woon man jigéen bu ko neexee mu dégg ajaratu te du dem màkka xam nga ci loolu bu ko neexee moom jigéen ñu woowee ko ajaratu te du xam nga lu koy waral lii waral jigéen di dem ñu koy wax ajaratu te du dem màkka mooy jigéen bu sa jëkkër wàccee fi mu liggéey bay door a egsi góor yi ñoo sonn góor yi ñoo sonn sofi fexe ba am dépense ak jafe ak a metti ci jamono ji ñu toll. d'accord naa ba tey. waaye nag nañu ciy déggoog seen i borom kër yi ñu leen ciy d'accord loolu beneen détail la nañ ciy déggoo léegi dañuy gis ñoo xam dañuy foncé wu. forcé affaire bi demeewul noonu mais sa jëkkër su wàccee. exemple laa la jox mu wàcc fa mu doon liggéeyee ñëw dugg ci biir kër gi soxna si daal di jékki-jékki seen tànkam mu pënd mu jël ay lexem teg ci tànk yi ngir dindi pënd bi demal ci nuseetul majaalis maa ko teg bët. on a ko ci benn télévision bu ñu ma invité woon ma wax la ni la carrément loolu mel na ni ku ñu boo ko defalee sa jëkkër war am nga garaatu ajaratu sa jëkkër liggéey ba wàcc ngay fomp tànkam waaye dama ne la fomp tànk amatul sax léegi yéen da ngeen a raxasalatul sax seen jëkkër tànkam. am na ñu koy def nag. waaw mais bariwul bariwul yooyu yëpp da cee bokk wax nga sàng lu am solo. war na bi maa xasama laka. te kun agna naasi. Abi Hurayrata moo ko wax contente-toi de ce qu'Allah t'a attribué mm-hmm. tu le plus riche du monde mm-hmm. mais li doy na sëkk mm-hmm. moo tax yéen jafe-jafe ji ngeen nekkoon jigéen dañ daan jël pusoog weñ di ñaw gémmiñam jigéen bu juddaan dañu koy rey reendi comme li xew période bii jigéen su juddaan dañu koy reendi reendi bu ñu demee hôpital ci waxin jëkkër ji bu ñëwee gis ni jigéen la rek dañ naan dañ ko rey ndax amul valeur am na ñoo xamante ni bu seen soxna yi mësaan ëmb dañuy gas kàmb bàyyi soxna si mu wasinee ci buntu kàmb gi su fekkente ni jigéen la dañuy dañuy dañ koy bomax rek suul ko dajale maasale dem se dem seen yoon Omar ibnul Xataab avant muy dugg ci diine def na ko Omar ibnul Xataab avant muy dugg ci diine def na ko nee na heure su xalaatee loolu rek xolom metti mu am yëg-yëg bu metti moom Seydina Omar nee na heure bu xalaatee doomam jooju nga xamante ni mës na ko def loolu ñii ni doom ji bi mu juddoo la doon jigéen mu def ko ñii ni déedéet judd na ba am juróom-ñeenti at moom xale bi na Omar doon ko def loolu ngir li mu doon lan jigéen te kooku bokk ci fukk yi dem aljana tey kon Seyda Sofiyatu jigéen ñi nañu bàyyi waat seen xel seen bopp nañu bàyyi xel ni lislaam jox na leen liberté bu yàgg lislaam bàyyiwul ba le 8 mars mu door leen koo jox waaye ñi leen bëgg dugal ci seen bopp lu ñu àttanul ñoo leen jël defal leen formule yooyu ñu cay créer nag lu nekk surtout fii Sénégal créer lu nekk ñuy def associa ñu ne ci association yi femme de développement yi mais femme au foyer yi ana ñu ñoom ñi nga xam ni bu ñu xëyee dañuy liggéeyal seen jëkkër ñoom ci loolu rek la dox ana ñu ñoom oustaz boo demee assemblée nationale. Mhm. da ngay gis jigéen ñi ñu ngi fa bare ba dee. Mhm. mais bari na ñu fa nekk te jànguñu. Mhm. te pourtant defuñu lenn loo loo xamante ni mu ngi jëriñ réew mi. nekkee wuñ fa lu du tàppaasante xuloo. Euh, xeex xasante. mais te loolu doxalul réew. loolu doxalul réew. pour man jigéen liy doxalul réew mooy euh, seen njaboot yi nga xam ne war nga war ngeen koo tabax yaag sa boroom kër. kooku nga defar ko. pour ëllëg lu muy jariñ mais tey su fekkee ni jigéen ñi ku ci naa taluñu seen njaboot. xam nga ñii wa ngi fii feneen ak feneen ak feneen. xam nga du ñu mën a toppatoo seen i njaboot daal ba nga xamante ne ni tey lu ñu bëgg ñun ci suñu société bi duñ ko am. xam nga wax naa la léegi ci xadis bi yonent bi salaa salaam dani ñeent ñii mooy tax nit texe ñeent nga am jabar ju baax wala jëkkër ju baax arbaatun min saadatil mar'ati an takuna zawjatu saaliha waxuma la loolu wa awlaaduhul abraar njaboot ju baax wa yi na sa njaboot ña ñuy àndal génération ba ñu tombeel ñu doon ñu baax yow sa jëm bopp ngay liggéey ci sa biir réew am na ñoo xam ni amul sens ci ñoom amul benn sens li ñuy def yàlla gërëmu leen ci yonent bi gërëmu leen ci jigéen ñi am saleer ñëpp dañuy waxtaan bu ñu fukk lañ bu ñu dee fukk ñett ñi ñoo ci respecté seen jëkkër ñi ci des ñëpp toogal muut baa mott lañ lay wax. doguma la oustaz am na jigéen ñu naan seen liggéey moo leen gënal foofu seen boroom kër bu ñu demee ba nar a euh, ba seen boroom kër na leen a yàqal seen liggéey ñu wàcc fa sëy ba dem ci seen liggéey. waaye daal dinaa ñëw ci benn xadis. bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dafa wax ni. istawsu bi nisaayi xayra yéen góor ñi maa ngi leen di digal ngeen dimbali jigéen ñi ko salaa sallam lu waral loolu mu ni fa innal mar'ata xuliqat min dilain ahwaj jigéen ñi ngi ko bindee ci faar bu dëng mu ni nag wa in faar boobu di faaru càmmoñu góor faaru càmmoñu góor yonent bi nee na bi ci gën a kaw bi ne ci kaw foofu lañu ñu bindee jigéen moo ci gën a ngand te moo fi gën a féete kaw boo xoolee nit faari kaw yi ñooy gën a ngand yi suuf yi mu ni moom jigéen wayn taraktuhu soo ko bàyyee lam yadal ahwaj du dañ ci dëng te jigéen faar bi ñu ko bindee dafa dëng kon boo ko bàyyee mu dëng boo ko jubbantee damm ko kon léegi nooy def yonent bi nii fas taw suu bi ni say xayra mhm. nangeen ngeen fexe ba di waxtaan ak ñoom di leen conseiller dimbali leen jàppaleen leen waaye ñoom ñu xam seen place xam nga seen place mooy lan ñu xam ni yàlla moo jël kilifteef teg ko ci kaw góor def ko jigéen mhm. xam nga ni seen juma bëggoo ñu ni àjjuma jii di ñëw seen juma ba mhm. Seyda Sofiyatu moo koy giite àjjuma jii di ñëw ñu ni kuy giite ñu ni jigéen la ah sëy yi lan moo tax yàlla takkloowu leen ko sëy yi yàlla takkloowu leen ko bu nit génnee àdduna yàlla neewul na jigéen giite na ko jigéen géete kon responsabilité yu bari ci góor la ko yàlla teg kon suma jigéen ñi tànta yi bàjjan umpaañ xarit yi mag yi rakk yi ah ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a góorgóorlu ci seen wàllu diine xam ne bari na ci daal loo xam ne ñu ngi koy organiser dañu leen di nax rekk te lu lu mën a xew nag bisu bàmmeel dafa jara bàyyi xel téel sa jëkkër bu baax respecté ko jox ko cëram li des nga bàyyi ko ak sunu borom Seyda Sofia temps bee ñu ko dul may xanaa ma delluwaat la micro. macha allah oustaz li nga indi am na solo macha allah leeral nga yaakaar naa ne daal jigéen ñi dinañ ci jëlee lu baree bari ñu jéem a góorgóorlu comme ni nga ko waxee parce que ñun ay yaay lañ tey ay école la moo war a yor njaboot bi kon am na benn comportement bu mu war a yor kon bu ko defee jigéen ñi ñu ma commencé ko ci sama bopp nañu gën a gën a góorgóorlu incha allah kon ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullah